Besoin, Besoin d'énergie de faire le point sur vos problèmes du quotidien ou tout simplement besoin de détente Venez découvrir Etioplus. Etioplus, c'est le premier centre en Afrique de l'Ouest où l'on pense à visiter la mécanique de votre corps. L'éthiopathie est à l'honneur, craquer, bouger dans tous les sens, allonger, étirer, retourner. Nous vous donnons un nouveau corps après une révision complète. Nous prenons le temps d'analyser les causes de vos problèmes et de les résoudre durablement, de médicaments. Adapté à tous, enfants, femmes enceintes, jeunes et personnes la mécanique du corps à la cité Kergorgi. 77 626 00 06. waaw waaw waaw loolu moom loolu def boo xoolee def naa ci benn maa ngi sama papa mais ma wax Sénégal yi rek mooy sama papa Père de Gaulle Boy Niang bu yegsee fii grâce à Père de Gaulle il faut gars yi tamit ñu xam lool man dama doon jàngi école Père de Gaulle à bas âge moo ma jël dugal ma may jàng boxe maanaam muy préparé petit champion yóbbu ko muy jàng boxe bas âge ma dem ba tey egg ci boxe bi benn niveau suma course boxe boxe bi ne bàyyi ko kii ma yóbbu ko mu nekk boxeur mu la déedéet dama ko fi doon indi jàng xeer ak kii mbër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 ne moom mosul dégg Boy Niang laaj ko du bëreeg Boy Niang man tamit loolu laay wax ci moom. yow tamit du ngeen bëri ma du mosuma dégg mu toog fenn defee ma. Hmm. donc fulla ak fayda ak ngor moo war man moo nekk ci man ba fees del man tamit du ma laaj. dëgg dama ne ma ak Siteu moom ki xool làmb na xool dëkkandoo bu rafet rek làmb koon na rek ñu bëre suñu carrière parce que am na làmb yoo xamante ni lu mu yàq moo lu muy defar te jaru ko yaa ngi dégg.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 waaye xam ne li ñu fi wax ni yëpp wax moom bu jote rek dañ koy wax ñu leeral lépp ñu xam waa kër Boy Niang position bu ñu taxaw ci lépp lu mun a ñëw loolu rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Fadel maa ngi leen di remercier bi dama ko joxee Papa Ibakan dina ko jox yéen gars yi ñëwoon yëpp di jégalu di wax ni ñu ngi jégalu ñëpp di gërëm tafakaañi waaw ñëpp perxës waaw gis nga maa ngi nuyu ñëpp waa waxtaan bi tàng na sax mais xam nga yaram bee tàng rek yaa ngi dégg moo tax ñu ñàkk mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp aussi autorité Pikine yëpp ñu ngi leen nuyu yaa ngi dee kilifa yëpp ñi nga xam ñu may jàppale parce que ba am ñoo xamante ne bëgguñoo génn mukk bu ñu toogee réunion ba wax sax ay kilifa waa kilifa lañ ci dëkk bi ñoo xamante ne bu ñu toogee wax sax ba pare ñu ne ma boo ñaam naa bu tudd sama tur bul génn wax ma bàyyi ma rek dans l'ombre ma liggéeyal la wala ma jàppale la ñooñu boo gisee ma génn wax sax ñoom ñoo tax ñoo xam ne su ma waxoon seen tur dinañ na déedéet waaye àdduna noon la nit bu lay bëgg a jàppale te bëggul feeñ danga koy bàyyi ci biir rek di nuyu son papa Manick Suus di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne dama ànd ñoom ba at ba léegi ñu dégg man ñu jàpp am fan si bi gaa yëpp capaacuri national ak international loolu la ñuy dégg seen mbër waaye noonu la àdduna noonu la yaa ngi dégg di sant ñëpp di sant Abdou Kañ di sant waa Daaru Rahman waa kër famille Kañ yi ma xëy famille Kañ rek laa wax mu jeex tàkk waa Daaru Rahman waa kër Cheikh waa kër maam Cheikh Rim Duma Seck waa Sambe suma kër papa di nuyu sama papa di ko gërëm bu baax Père Dégol di wax ne gars yi nag mooy loolu père dugal koo ci laa dama lay attaqué sama père la waaw noonu la de di ñëw sama papa Boston mu gudd fan wér caatu Boston di ñaanal tamit combat bii di ko xam ne noonu la ndeysaan waa père Boston yàlla na suñu moom ko jàmm bu baax suñu papa la père Mansour Diop suñu xarit ñu koy nu non final mooy loolu déggoo li ma la man moom boo bëggee dégg-dégg ñun moom nee naa la incha lu jot yomb te boo xoolee ñun ñëpp lu ñu sant suñu xol moo dafa jot gars yi indi bi man ak équipe bi dama ci am ay xarit yoo xam su may nit la ne comme ni ko waxee Pape Cissé moom Pikine Gana Gueye Cheikhou Kouyaté combat bi xaalis la ma jox Gana yëkkati xaalis jox ma su ma ay frère lañu Sadio Mané Kalidou Koulibaly ñoom su ma ay frère lañu maa ngi leen di ñaanal jàmm Saliou Cissé suñu frère waaw di leen ñaanal jàmm di leen wax ne fi mu toll nii ñun suñu xel suñu xalaat suñu doole yëpp mi ngi si ñoom final bi moom foofu ñu woppaay di ko wax gars yi xam naa Gris mooy président bi di ko wax mu woo gars yëpp fu nekk rek say ñaari paa wala ñett nga dugal ko ci bagage mu jëlee liste Cameroun la xam Égypte ku ci gagné bi sànni ko gars yi ñoo joor ak yooyu gars yi yeew bu baax ñu jël coupe bi ñëw ah. ñu ngi sant Père Zora ñu ngi sant ñëpp gars yi kontaan naa nag ci gis yéen kontaan naa ci waxtaan ak yéen den wax ni rek dafa am tolluwaay la ko waaw maalo mi ngi foofu gis nga daa dem pour jëri coupe bi moom xam ne man dinaa leen maalo bu demee rek coupe day ñëw moom ñëpp di gërëm ñëpp për bu rafet kontaan nañu maa ngi jégalu nag ah. waaw di kontaan Besoin d'énergie et de vitalité? Besoin de faire le point sur vos problèmes du quotidien ou tout simplement besoin de détente? Venez découvrir Etioplus. Etioplus, c'est le premier centre en Afrique de l'Ouest où l'on pense à visiter la mécanique de votre corps. L'éthiopathie est à l'honneur, craquer, bouger dans tous les sens, allonger, étirer, retourner. Nous vous donnons un nouveau corps après une révision complète. Nous prenons le temps d'analyser les causes de vos problèmes et de les résoudre durablement, sans l'utilisation de médicaments. Adapté à tous, enfants, femmes enceintes, jeunes adultes et personnes âgées. Etioplus, la mécanique du corps à la cité Kergorgi, 77 626 00 06.